asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu ak ñépp di baal ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko tekki sama loxo papa muy Wally Ballago Seck li nga xam ne tey bu ma indiwaat ndax ku ne xamoon na ni découragé woon naa te yéen li may wax xaw ngeen ci xam ba as tuut que tey ku gis lay ngaay bii. gisoon day jaay bee ñu xam ne petit changement am na te en cause de barkeem la mu soutenir ma bëgg ma te yàlla rek tax pare pour jàppale ma ndax aar rek laa xaw ma leneen lu dul aar ma koy sant bu baax sam papa ji di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko bàyyi ak yàlla nag mu fayal ma ko te saxal suñu ànd di jëlaat nuyoo bi nag di ko teg ci loxo papa Amady ndax nag foo dem am na njiit. ñëpp nangoo ko njiitam ndax ku ne xam na mook sama diggante mook Papa Wally kon tey moom it jàpp na ci ndax daf may conseiller di ma xamal àddina indiwaat ma te gis ngeen ko di moom a njëkk a xajal kaw seen dooleel Ramdaan waxaale wu ma leen orchestre bi sama papa yi fa nekk ku ci mel ni Mbaye Si Ndiaye Fallou ñoom Paa Wally ñoom Papa Cheikh Anta ñëpp daal ku leen juum mais ñoom ñëpp kenn xataluma ci. ndax tey njiit mën naa nangu sax ngay bañ ndax aar ah ku ne gis na nu demee mais ma xam ne foofu famille la ndax ku fa mës a ñëw yaatal nañ leen ma leen baax sama papa di leen gërëm di leen xamal ne nag fii ma nekk sax à cause la ay moo tax ma ñëw hôtel man ay hôtel xam ngeen ma yéen waa TikTok sama waa TikTok samay fans musuma nekk ay hôtel nii di mu la première fois kuy waxal yàlla lu weesul sama tournée. laa nekk hôtel mais man duma tere na fenn sama aar suñu kër mais nag loo gis rek dañuy waxtaan ndax à cause de Faramareen gi ci barkeem ay nitam yu baax samay papa samay mama ñoo tax ma nekk fii pour ñu ne ma naa reposer wu une semaine loolu kese la melul dara yéen nag samay fan si yéen a tax ma wax leen kàddu yi parce que gis ku la bëgg dafa ter ba daw ba dee ngir ñu la bañ te damay seetaan samay commentaire ngeen di sonn ci sama jëm mu leer na ni joxuma la ngeen lekk joxuma la ngeen naan te ku sañoon kenn koo bëgg da ngay dégg ci moom ay ngëneel te ngëneel gi ma am nag ma leen koy yéen di leen ko jox pour seen xel dal ci man te xam ne bànneex bi ngeen xam mu yëngal xamee ko ci yëngal ba bugg day gën a yëngal banish faramarin ba mu neex ndax doyal leen te ni sax doyalu ma mais dama amul pexe far sama papa jël ma taf ma ci wetam loolu kese la may gërëm sama maman maa ko daf maa woo conseillé ma def ma ni doomam xaw ma ko sax ndax yàlla ko ale tax ma xam ko dama ko daan dégg rek mosuma ko gis lu dul appel ma di ko sant bu baax mu may ma teraanga ju bari nag ndax nit ku gërëmul yàlla rek ku gërëmul nit rek doo gërëm yàlla dama koy gërëm bu baax sama yaay jooju yàlla guddal fanam yokk kàttanam ak mën-mënam di ko bàyyi ak yàlla yàlla fayal ma ko loolu kese la woon may du dara asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu ak ñépp di baal ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko tekki sama loxo papa muy Wally Ballago Seck li nga xam ne tey bu ma indiwaat ndax ku ne xamoon na ni découragé woon naa te yéen li may wax xaw ngeen ci xam ba as tuut parce que tey ku gis lay njaay bii gisoon Baye Ndiaye bee ñu xam ne tuuti changement am na te ma soutenir ma bëgg ma te koy sant bu baax sama papa ji ko ñaanal gudd fan ak ko bàyyi yàlla nag mu fayal ma ko te saxal suñu ànd di jëlaat di ko teg ci loxo papa ëmb na foo dem am na njiit. ñépp nangul ko njiitam ndax ku ne xam na mook sama diggante mook Papa Wally kon tey moom it jàpp na ci ndax daf may conseiller di ma xamal àddina indiwaat ma te gis ngeen ko moom may njëkk a xajal kaw seen dooleel ma Ramdaan waxaalewu ma leen orchestre bi sama papa yi fa nekk ku ci mel ni Mbaye si Ndiaye Fallou ñoom Papa Wally ñoom Papa Cheikh Anta ñëpp daal ku leen juum mais ñoom ñëpp kenn xataluma ci ndax tey njiit mën naa nangu sax ngay bañ ndax aar ku ne gis na nu demee mais ma xam ne foofu famille la ndax ku fa mës a ñëw yaatal nañ leen ma leen di baax sama papa yi gërëm di leen xamal ne nag fii ma nekk sax à cause de la ay tax ma ñëw hôtel man ay hôtel xam ngeen ma yéen waa TikTok sama waa TikTok samay fans musuma nekk ay hôtel nii di mu la première fois kuy waxal yàlla lu weesul sama tournée. laa nekk hôtel mais man duma tere la fenn sama aar suñu kër mais nag loo gis rek dañuy waxtaan ndax à cause de Faramareen gi ci barkeem ay nitam yu baax samay papa samay mama ñoo tax ma nekk fii pour ñu ne ma naa reposer wu une semaine loolu kese la melul dara yéen nag samay fan si yéen a tax ma wax leen kàddu yi parce que gis ku la bëgg dafa ter ba daw ba dee ngir ñu la bañ te damay seetaan samay commentaire ngeen di sonn ci sama jëm mu leer na ni joxuma la ngeen lekk joxuma la ngeen naan te ku sañoon kenn koo bëgg da ngay dégg ci moom ay ngëneel te ngëneel gi ma am nag ma leen koy yéen di leen ko jox pour seen xel dal ci man te xam ne bànneex bi ngeen xam mu yëngal xamee ko ci yëngal ba bëgg ko day gën a yëngal banis faramaareen ba mu neex ndax doyal leen tam ma ni sax doyalu ma mais dama amul pexe far sama papa jël ma taf ma ci wetam loolu kese la may gërëm sama maman maa ko ma maa woo conseillé ma def ma ni doomam xaw ma ko sax ndax yàlla ko tax ma xam ko dama ko daan dégg rek mosuma ko gis lu dul appel ma di ko sant bu baax mu may ma teraanga ju bari nag ndax nit ku gërëmul yàlla rek ku gërëmul nit doo gërëm yàlla dama koy gërëm bu baax sama yaay jooju yàlla guddal fanam yokk kàttanam ak mën-mënam di ko bàyyi ak yàlla yàlla fayal ma ko loolu kese la woon may du dara asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñépp di sant ñëpp di baalu ak ñépp di baal ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko tekki sama loxo papa muy Wally Ballago Seck li nga xam ne tey mu ma indiwaat ndax ku ne xamoon na ni découragé woon naa te yéen li may wax xaw ngeen ci xam astu parce que tey ku gis lay ngaay bii gisoon Ndeye Ndiaye bee ñu xam ne petit changement am na pour jàppale ma ndax aar koy sant bu baax sama papa ji ko ñaanal gudd fan ak yàlla di mu fayal ma ko te bi di ko teg ci loxo papa Amady ndax nag foo dem am na njiit. ñëpp nangul ko njiitam ndax ku ne xam na mook sama diggante mook Papa Wally kon tey moom it jàpp na ci ndax daf may conseiller di ma xamal àddina indiwaat ma te gis ngeen ko Amady moom may njëkk a xajal kaw seen dooleem Ramdaan waxaale wu ma leen orchestre bi sama papa yi fa nekk ku ci mel ni Mbaye si Ndiaye Fallou ñoom Paa Wally ñoom Papa Cheikh Anta ñëpp daal ku leen juum mais ñoom ñëpp kenn xataluma ci. ndax tey nit mën naa nangu sax ngay bañ ndax aar ku ne gis na nu demee mais ma xam ne foofu famille la ndax ku fa mës a ñëw yaatal nañ leen ma leen di sant baax sama papa di leen gërëm di leen xamal ne nag fii ma nekk sax à cause la ay moo tax ma ñëw hôtel man ay hôtel ngeen ma yéen waa TikTok sama waa TikTok samay fans musuma nekk ay hôtel nii di mu la première fois kuy waxal yàlla lu weesul sama tournée. laa nekk hôtel mais man duma tere na fenn sama aar suñu kër mais nag loo gis rek dañuy waxtaan ndax à cause de Faramareen gi ci barkeem ay nitam yu baax samay papa samay mama ñoo tax ma nekk fii pour ñu ne ma naa reposer wu une semaine loolu kese la melul dara yéen nag samay fan yéen a tax ma wax leen kàddu yi parce que gis ku la bëgg dafa ter ba daw ba dee ngir ñu la bañ te damay seetaan samay commentaire ngeen di sonn ci sama jëm mu leer na ni joxuma la ngeen nekk joxuma la ngeen naan te ku sañoon kenn koo bëgg da ngay dégg ci moom ay ngëneel te ngëneel gi ma am nag ma leen koy yéen di leen ko jox pour seen xel dal ci man te xam ne bànneex bi ngeen xam mu yëngal xamee ko ci yëngal ba bugg ko day gën a yëngal banish faramarin ba mu neex ndax doyal leen te ni sax doyalu ma mais dama amul pexe far sama jël ma taf ma ci wetam loolu kese la may gërëm sama maman Makotou Konté daf maa woo conseillé ma def ma ni doomam xaw ma ko sax ndax yàlla baale tax ma xam ko dama ko daan dégg rek mosuma ko gis lu dul appel ma di ko sant bu baax mu may ma teraanga ju bari nag ndax nit ku gërëmul yàlla rek ku gërëmul nit rek doo gërëm yàlla dama koy gërëm bu baax sama yaay jooju yàlla guddal fanam yokk kàttanam ak mën-mënam di ko bàyyi ak yàlla yàlla fayal ma ko loolu kese la woon may du dara